sallallahu ala muhammad sallallahu ala nur muhammad mbokki kun fayakoon tv yi ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baal yéen ñi nga xam ne ne yeneen seetaan canal bi abonné si ñu ngi leen di invité ngeen bés kulus bi nga xam ne vidéo bu ñu def rek ngeen mën koo am si sensé seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad mooy ñëwaat ak yéen tey si guddig ajjuma ji pour ñëpp mën a jariñu si tegtal yi nga xam ne ne moom lañuy joxe fii nga xam ne mooy Kun Fayakoun TV nga xam ne mooy chaîne bi nga xamee ne ñu ngi invité ñëpp ñu abonné si te bés kulis bi nga xam vidéo bu ñu def rek ngeen mën ko am si sensé di ko posé laaj yi muy si commentaire incha allah dana tontu yëpp tey nag ñu ngi waxtaane wàllu ndoxu siti wàllu hémorroïde ak jigéen goo xam ne du yëg bànneex ak góor goo xamee ne eh, buy sëy du yàgg wala day gaaw a daanu wala awraam dëgërut awraam dafa nooy nga xam ne ne boobu góor nan lay mën a def ba loolu saafara ak li koy waral ak lan ak lan la si wàllu sëy incha allahu rabbi tey moom lañ bëgg a waxtaani fii nga xam ne mooy Kun Fayakoun TV si wàllu sëy incha allahu rabbi kon ñu ngi wax ñëpp ñu teewlu si bu baax a baax a baax mën a am video yi di leen invité nag ngeen abonné ci bu baax a baax Euh, benn góor bu euh, àjjee si takk soxna na takk soxna tax tan euh, bàyyi foo bu bari waaw foo bu bari tamit toujours sa maniwu di génn wala toujours sa ndox di génn loolu day dem ba nga xam ne ne sam ndox dootul mën a amati doole boo demee sax bay sëy ba ànd ak sa soxna pour mu jàpp ëmb dafay jafe am góor ñoo xamee ne ñi ngi nekk ci biir néegu sëy di sëy ak seen soxna waaye seen soxna dafa amee ndoxu siti bon góor ki nag amul ndoxu siti waaye soxna si moom moo am ndoxu siti waaye nag saa buñ sëyee rek ba pare dafay tuuruwaat ba pare soxna si kanamam dafay wow te du yëg bànneex te mm, toujours buy sëy ay metti loolu day dal jigéen ñu bari waaye góor ñi lan mooy seen problème boo xoolee bu njëkk na mag ñi daa wax góor bu yeewoo tubayam dafa war a xumb moo xam ne ne góor dëgg la léegi li nga xam ne nag ñuy wax ay lekk yooyu yëpp du benn lekk am fola bu weesoon foofu feebar la muy ndoxu siti bi ak hémorroïde moo tax képp ku ko am booy faju da nga faju ci ñaar yi ba pare muy ndoxu siti ak hémorroïde waaw moo tax léegi góor ñi boo xoolee seen awra yi day nooy népp awra bi du dëgër ba pare eh, buñ demee ba àgg ci wàllu sëy bi duñ def un une minute duñ def deux minutes am ñoo xam ne buñ sëyee benn yoon du mën a sëyaat seen doole jeex na loolu lépp nag incha allahu bi daal na jox secret yoo xam ne ne moom moo koy dindi waaye ñun moom si fii si cabinet bi liñ koy faje moom juróom-ñaari fan nga doon góor dëgg-dëgg nga xam ne xale bu mën la ko joxee nga mënal ko dara boo jëlee traitement yi juróom fan ndoxu si teg hémorroïde bi lépp dafay traité wu ba si jigéen ñi nga xam ne ne saa bu jëlee ëmb ëmb ba tuuru loolu tamit ndoxu siti moom moo koy waral kon góor ñi ñu si gën a bàyyi xel te li nga xam ne mooy hémorroïde képp ki nga xam ne ne am nga ko am ndox moom deegoo naan bu baax a baax a baax a baax lii nga xam ne ne moom mooy ndox saa boo xëyee lu mu deedee na nga si naan litre waaw litre na si naan waaye nag maa ngi wax muy baatu karatay ni bépp koo xam ne ne yaa ngi sa biir néegu sëy di sëy nga bëgg guddi googu moom doo daanu wala guddi googu dangay liggéey ba su soxna bég na nga wut pomme bu ruus nga bind si baatu karatay ni ba pom bi fees bala nga sëy une de temps nga lekk ko ba toog une de temps doog ànd ak sa partenaire muy soxna si su journée boobu dafa daanu boo tey moom ay secret yoo xam ne ne pour faj wàllu ngóor rek laay joxe ak beneen bi téeméer eh, téeméeri ñebbe bu xonq ngay wut nga teg ak téeméeri pusa nga teg nga fexe ku la mën a bindal tabati yaddaa téeméeri yoon nga jël saafara boobu toggee ko ñebbe yi pousse bu ne ak benn ñebbe ba sa ilaa yow mi diini góor dëgg ngay doon waaw boo wutee soowu mbaam soowu mbaam nii nga taxal ko sa awra dootoo tële tële moom jeex na sa àdduna am na benn baat boo xamee ne képp koo xam ne yaa ngi ànd ak sa soxna wala ku mën a doon boo ko si bindee guddi googu doo daanu waaw baat boobu nag joxe woon naa si TikTok bi waaye pirate yi dafa bari moom moo tax waaye bépp koo xamee ne daal surtout fii li muy alam tara fa bind nga ko ñetti yoon bu góor bu jigéen bu ngóonu ngaana nga boole ko sungufu dugub ak tuuti xorom jël ko juróom-ñaari fan soppi sax da koy fajaale loolu kooku bu la neexee takkal juróomi soxna waaw takkal su su si journée bi nga sëyeeg ñëpp teewul du góor ngay doon doo a daanu te da nga yëg sa bopp carrément kon nag loolu leen leen indiloon tey fii si Kun Fayakoun TV ñu leen di invité ngeen abonné bu baax te bés ku nga xam boobu def ngeen mën ko am seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad